ak Rafah TV ñëppay dañ agréer asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balax di leen balax di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax rawatina suñu mbokk internet yi nga xam si ne moo ñu topp suñu seen euh, de télévision bi di Rafah TV seen de télévision culturelle et tey nag ñi ngi fii ci Porokhane rawatina ci béréb bu sell bu tedd bi nga xam si ne mooy euh, Bousra kër Serigne Mamadou Lamine Gaye ñu dikk fi nag fekk fii euh, jëwri kër gi ñu dëgg ko bëgg koo dikk suñu micro taataan ay kaddu yu mu jëmale ci béréb bi nga xam ne fi lañ ko fekk muy béréb boo xam si ne yaakaar naa biñ ko sosee yàggul waaye nag euh, nett ci gémmiñu borom la dàqe. kon xam naa ñu jox kaddu gi rek euh, Serigne Bathie Fall mi nga xam si ne moo yore kaddu bi Serigne Bathie ñoo ngi lay nuyu di la ziar ginnaaw nuyoo beeg bi nga baax say kaddu yu nuyoo ak ziar mbokki internet yu Rafah TV. kon Serigne bi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi lay delloo nuyoo ci barab bi ngeen fekk tey jii. di Firdawsi di Firdawsi kër Serigne Mouhamadoul Amine Gueye muy Firdawsi Porokhane daal lañ koy mën a waxe muy doon barab boo xam ne bii yéene ju rëy rëy rëy moom lañ ko sose ah, fañ ko tàmbalee nag dafa sori lool ndax ci pas-pasu mag ñi rek ci lañ ko sës ak it fa si yéene jox lépp suñ bopp Sëñ Tuubaa di ko liggéeyal ca nam ko bëggee loolu nag seet nañ ko seet ba xam ne rek. Porokhane moom kër Serigne Mouhamadul Amine Gaye eh, kër sëriñ Touba la daara barabu soxna jaara busa la waaye Serigne Mouhamadul Amine Gaye munu faa ñàkk barab ba mu fa amee barab ba noppi it dañoo war a tudd turam ba ba ñuy tudd turam ba it dañ koy tudd ci lam gën a fonk wala la ko Serigne Touba daan liggéeyloo muy alxuraanul karim loolu tax na bi ñu amee barab bi ci 2009 wala 2008 wala ba 10 ñetti at yooyu du ko génn ah ba ba léegi ñoo ngi ci las las waaye dañoo dox di dox di dox ba mu yàgg ñu ne barab bii daal li fi gënal boroom te gënal fi yàlla mooy ñu boole ko ci barab bi alxuraan karim yi te it xel dana dellu ci ne Serigne Mouhamadou Amine Gueye Serigne Touba daawu ko liggéey loolu lenn lu dul jàngale fu mu mas a nekk ci réew mii ak ba ci gànnaar sax fekk na ko fa mu am tawfeex googu nuy dox di dox di dox ba sëriñ maam seex mi xalaat loolu jël barab bi def ko muy barabu Serigne Mouhamadou Amine Gueye waa kër gépp bokk ko ñu dox ci ay at ay at bi mu yàgg mu ne barab bi daal gis na ci loo xam ne lii yéene ja ak liggéey ba war naa ëpp loolu mu ne nañ ko def daaray alquranul karim ba fi may waxee ak yow nii lu mat ñetti weer wala ñeent mën naa ne ne biñ sancee barab bi ak léegi ndax tabaski wala lu ci sës rek booba lu jiitu tabaski sax sancoon nañ ko kon loola tàmbaliwaay la boo xam ne bii nag bëgg na noo doxe noo xam ne nii képp ku nu bokkal sëriñ Mamadou Amine Gueye nuy liggéey ci pas-pasu liggéeyal Sëñ Tuubaa bëgg nañ nga xam barab bi soo ko xamee ba noppi it nga xam yéene ji ak jël gi nga xam ne moom lañ ko jël ak liggéey bi ñu fas yéene ji liggéey ndax nii alxuraan doone li nga xam ne luy wéy di dem la suñu pas-pas foofee lañ ko takk mu bëgg fee sos liggéey boo xam ne bii li feeg janta ngi fenk ko so rek liggéey boobu di dox ah, Euh, liggéey liggéey liggéeyal alxuraan nag naka jekk mënut a mosut a ñàkk waaye ci biir liggéeyu Sëñ Tuubaa bi dafa am yeneen yeneen yeneen xeeti yëg-yëg yoo xam ne ci biir liggéeyu alxuraan sëriñ bi de ko cee yëg ndax it wóor nañu ne ñëpp a ngi daw wutali sëriñ Tuubaa fu waaye nen it yaa ngi jéem a jox sa bopp sëriñ Tuubaa waaye beru ci ab barab ne ko sëriñ bi pas-pas bi ko sëriñ bi daan defee foofa lañ ci jëm ndax lan nit moom mu ne su ko defar taxawu leen te it defar nit dafa laaj ay barab ndax sëriñ bi mag mu masaan taxool defar la ba wóolu la dalay daal di yóbbu ci barab jox la suuf boole la ak ay nit ngir ngay defaree naka suñu laa doon waxee naan matt la goo xam ne gii ku ko jege tàng wala am na nu mu ko waxee waaye loolu la ci sëriñ bi bëgg mooy beru ci benn ruq boo xam ne bii jëlaat ci njaboot gi nga xam ne njaboot goo xam ne seeni maam ak seeni baay ñoo ñëwoon ci kër gi ngir ànd ak sëriñ Mouhamadul Amine géey ngir liggéey sëriñ Tuubaa ñu jëlaat ci njaboot googee jéem a beru ci ruq wan leen yoon wa ànd ak ñoom ca loolee jiital ci alxuraan nag def leen ay taalibe loola bokk na ci li nga xam ne mooy pas-pasu barab bi te sëriñ Mouhamadul Amine Gueye daf daan wax ne doomu soxna su jàngul tilim su liggéeyut loof su sañcul sànku baatu sanc ñàkk a sànku googee nag ñun dañoo bëgg dañ caa jeqi wax ja ba gis ci ne njaboot gi war nañ cee jël loo xam ne bala ñoo sànku nu wan leen yoon wa loolooy sababa sampu barab bii def ko muy daaray alxuraan jël ay gone yu ndaw indi leen fi fas leen yéene nampatal ci alxuraan buñ ca jógee it ñu fas leen yéene def ay taalibe yoo xam ne yi du ñu gëm sëñ Tuubaa ci dégg naa wala leneen lu ñuy teg seen bët la ci ay jëfin yoo xam ne dañ koy ànd moom ak ay waxin yoo xam ne dañ koy ànd ak moom alxuraan jiitu ca loole kon nag liggéey la boo xam ne bii woo nañ ci àdduna bépp waaye rawatina nag ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal Serigne Mouhamadul Amine Gaye ndax ñooñu moom aw sas la ci ñoom ba ko sëriñ bi yégee rek lum ca warlul war nañ ko caa warlul lu ko ëpp ndax ñoom ñoo war a doon jumtuwaayu sëriñ bi. kon nag nu xam ne ab liggéey ngi nii boo xam ne bii tàmbali na te kenn mënu koo dem nag luy dem la ndax alxuraan moom luy dem la a ah, fa ci sëriñ bi toll ak ni mu ko waxee ki nga xam ne moo tax moom lañ wéttalikoo ba sanc barab bi muy sëriñ moom mun Muntaxa sëriñ bi dana ci waxal boppam ak yëg-yëgam ak nam ko yëgee waaye man fi ma bëgg a waxee mooy ab wootee ngi nii boo xam ne bi dañ koo sof ca woote mag ñooñee rek ak dox yenu mag ñooñee fas ko yéene wéer la si jëkk mooy jël ay gone yu ndaw indi leen fii jàngal leen alxuraan wan leen yoonu taalibe yi ñu aw ci di dox buñ ca noppee ñu ànd ak ñoom ba fépp fu ab taalibe war a àgg rek ñu àggal leen fa. yaakaar naa ne wax ji nañ ko bëggee woon mu yaatoo ak nañ ko bëggee def leneen li sëriñ bi mooy moo ko yeggale kon buñ ko joxee loolu bu ca noppee ñeneen a ngi fi ñoo xam ne mën nañ cee dugal seen kàddu ñu xam ne sëriñ bi daal ubbi na ab liggéey boo xam ne bi woote rek moo ci des te ñu ngi ñaan ñëpp. képp ku bëgg a jariñu boo ko déggee rek nga daw wuy si kon damay jël kàddu gi delloo ko ba ci kanam incha allah. jërëjëf sëriñ euh, Bàcc Massamba Gueye ñu ngi lay jaajëfal faal ñu ngi lay jaajëfal bu a baax ci kàddu yu am solo yooyu xam seen yëkkati nga ko ci bu sell bi waaye comme noonu mu ko waxee ci biir yi kaddoom rek dañu jël kàddu gi jégal ko sëriñ Cheikh Gueye mi nga xam se ne mooy jëwriñ ni kër gi sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu di la jaar gi naaw bi ak ziar ñu bàyyi la nga nuyu ak euh, mbokki internet yu Rafah TV. maa ngi leen di nuyu te leen ziar. waaye di jiital sama nuyoo ak sama ziyaare ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaan mu yàgg fi lool yàgg gu ànd ak wér ak kàttan ak kewate te lépp lum naal wala lu mu yéene yàlla na yegg ci kanamam tan ànd ko ak moom euh, muy nuyu bokki taalibe yëpp te di ziyaare ñëpp waaw béréb bi nag ni ko sëñ bàcc waxee rek sëriñ Mouhamadul Mountakha ci boppam moom moo moo moo ma ko joxoon ma ko joxe ci at yooyu mu wax booba xaw naa yàggaale ma ko joxee rek ma xam ne cërub sëñ Mate Lamine Gaye la ma woo ci ñëpp wax dëgg yàlla ñëpp it ànd ceeg man yàgg yàgg ànd yàgg ànd ak man ñëw ci barab bi ñuy dox di dox di dox ba ma xam ne daal béréb daal boo xamee ne moom Sëñ Tuubaa da la koo jox nga war koo sàmm te e, sàmm gi weesuwul ay e, ay bis ci at mi yëpp daal def jëmbal barab bi daal te suuxat ko daa jot loolu tax ci bi ñu jubee tabaski gi ma indi fi lu mat ñaar fukki dong ñu tàmbali liggéey bi biñ ko weesoo tamit gannaaw bi indiwaat nañ fi yeneen lu lu jege lu rek jege juróom fukki dongo daal andi nañ ko fi fin ñu toll nii fas yéene cee liggéeyal Serigne Touba ndax sëñ sëñ Mountakha ba ma ko koy waxe ca Touba dama ko wax ne ko suñu borom de moo wax ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafisuun yàlla moom ci boppam moo indi alxuraan ci kaw suuf moo koy sàmm ma ne ko nag dama bëgg nga ñaanal ma béréb booba feek alxuraan nga ci kaw suuf nga lu béréb boobu bokk ci béréb yi sàmm alxuraan ci kaw suuf noonu noonu laa ko waxe mu mu am ci mu am ci kii lool euh, yéemu lool wax ci wax ji waaye wax ci wax ju ju tamit sant ci tamit defal nu ci ñaan ginnaaw ba it bi fi ñëwee tamit ci fan yële xaw naa fee am ay fan jiitu màggal gi dem naa ba ko moom noonu ma ko ko noonu ma waxee woon fële keroog fàttaliwaat naa ko ko mu soññiwaat ci. ak yeneen yoo xam ne nii wax na ma ko ci yoo xam ne nii euh, fas nañ ko fas na ko fas na ko yéenee fas nañ ko yéenee jàpp ci barab bi ci ci ci ci ci ci luy doxal rek njàngum njàngum xam ci dëkk bi ak ak ak njàngum alxuraan nii xañ na bi ma ñëwee bi ma ñëwee ci dëkk bi gëstu naa ko xam ne xaw na fi manqué ma ma ma jàmbat ko ko waaye maa ngi daal sant yàlla daal di sant sëriñ bi ndax danoo am ëpp cër ci sëriñ Touba. waaye sëriñ sëriñ bi ci boppam cër boobu moom moom moo ko firndeel te it moo moo moo tàllal sunu moo tàllal loxoom jox na ko kon noo ngi koy sant bu baax di ko ñaan di ko ñaanal mu yàgg fi yàgg gu wér ànd loolu moom la koy wax toujours na ko ñëpp ñaanal mu yàgg fi euh, kenn bu ci kenn xeeb sa bopp kenn ku ne noo ko mën a defee ko noonu yàlla fi yàgg te wér. waaye daal xam naa béréb bii ci boppam sëñ ma ñaaw mi nga xam ne ni mooy sunu waajur bi mu nekkee nett nettali na ma ne. boobu dafay jàng xam-xam ci sëñ Abibu sëñ Basiiru ci boppam yónnee na sëñ sëñ sëñ sëñ Abibu oto mu fekk ko mbul kayal mu jëlee ñu mu jëlee sëñ Abibu mbul kayal indi ko tiib ñu ànd ñëw fii nee na boobu daanaka dëkk bi fii dara néew fi bi ñëwee ci barab bi daanaka rek moom barab bi rek a fi nekk kaamil bañ fa jàng moo ko jàng ak sëñ biibu ak sëñ sëñ Basiiru ak ak ñoom àndaloon loolu yàgg na loolu boobu tàmbaleeguñ sax woote bi bi xam naa ne ginnaaw bi la ko sëñ Moussa Bassirou tàmbali woote loolu moom am naa ci xam-xam soxna jaara nag moom jaar jaaram ñëpp la sëñ Bassirou mi nga xam ne ni moo ko moo ko moo ko moo ko woote tamit nga xam ne moom moom moo moo firndeel béréb bi moo ko téye ba ak njabootam téye ko nii bi sëñ Touba jógee ci géej gi dafa jël sëñ sëñ sëñ Bassirou jox ko sëñ ba Jaxate sëñ Bay Jaxate de eggalal alxuraan sëñ Bassirou waaye mu mu mu boole sëñ Mbay Jaxate ak sëñ Mbay Lamin sëñ Mbay di jàngal sëñ Mbay Jaxate xam-xam euh, waaw am na lu ci bare bari loo xam ne nii loo xam ne wax ci ay ci kii waaye am na lu bare bari lu fa xam tey jii boo demee Kaylaan ba fekk guy goo xam ne nii sëñ Basiiru la ko sëñ Mbay Lamin tuddee diggante sëñ Mbay Jaxate ak sëñ Basiiru ak sëñ Mbay nun waa jëm mooy ak waa kii loolu mooy suñu cosaan bi ñu ñëwee ci sëñ Tuubaa it sëñ Tuubaa soppiwut loolu daf ko dëgëral ndax sëñ Mbay Lamin ci boppam bi mu nekkee bi mu nekkee nekke mu nekkee bi Sëñ Tuubaa nekkee Jolof waaw bi Sëñ Tuubaa nekkee Gànnaar boole woon na ko ak ñu bari ci mag ñi mu di ko mu ngi leen jàngal xam-xam bi Sëñ Tuubaa nekkee tamit Jolof sëñ mu ñaaw nettali na ma sëñ sëñ sëñ sëñ Sëñ Tuubaa woo na ko fa mu am fa ñetti nawet ak noor ñetti noor ak ñaari nawet bi mi ñëwee sëñ bi ci boppam daa daa daa dafa dafa dafa euh, dafa mbaar mbaar lu mbaar mu mag moom sëñ Tuubaa mbaar mu mag mu gudd mu mu mu siggi mu mu xaaj mbaar mi ci digg bi boole ko sëñ Mourou Moustapha ak sëñ sëñ sëñ Fallou ak mag ña fa newoon ne leen dee leen jaarale leen fu ñu jaaroon loolu la ko sëñ Tuubaa wax jaarale leen fu ñu nga xam ne sëñ Tuubaa day nekk ci penku sëñ ma Lamin nekk ci soowu moog ñi muy jàngal ñépp mu di leen jàngal xam-xam kon loolu moom loolu mooy mooy mooy sunu ndono mooy sunu cër waaw moom moom nee nañ njàng mooma dafa neexoon sëñ fallu ba sëñ fallu daa bëggoon ñu boole ci alxames ak ajuma waaye waaye bi ko sëñ ma Lamin bi mu ko waxee sëñ ma Lamin mu ne ko nañu dem ci ku baax ki ba am ci ndigal bi ñu demee mu ne nañ nañ bu alxames ak ajuma nañu noppalu loolu mooy wéy ba tey maanaam sant taalibe yi taalibe yi surtout ñi nga xam ne ñooy waa daayira bi nga xam ne mooy Saadatul diina nga xam ne man lépp lu may taxawal ci seen loxo laako teg ñoo koy taxawu ba ci liggéey bii tey lii nga gis lii nga fi gis nii diggante biñ ko liggéeyee matut matul weer matul matul weer damay wax ne ci ay wax rek la tàmbale woon ñuy soññee di di liggéey di liggéey ba ba nit man fee dal tey lu budul woon ak moom tey jii kon ñoo dal ci ay mbaar wala ay ci ay kii waaye seen pas-pas ak seen yitte ak seen soññee ci lañ ci lañ ci fi defaree lii tey seen yéene weesu na loolu. maa ngi leen di sant kii njiital sëñ sëñ Bàcc Fall mi nga xam ne mooy seen jëwriñ ak sëñ Ablaye mi nga xam ne mooy sama jëwriñ ca tool ya tey am ci taxawaay maa ngi leen di sant bu baax waaye yéen waa Rafah TV tamit maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax ndax lii daa mënta ñàkk muy fépp fu ay fu ay murit eh, daje di fa dund ngir ngir jëmmi sëriñ Tuubaa eh, ñu fekk leen fa wan ko waa àdduna loolu wàññiwul dara lu baax la noo ngi ñaan yàlla na yàlla na yàlla ci suñu borom teg loxo yàlla na yàlla na ko suñu borom yëkkati waaw fo ab fu fu ab jotulikaay di yegg yàlla na fa yegg ci barke Sëriñ Tuubaa te yàlla bu ci njuumte masa am mukk yàlla bu ci tarxiis wala lenn lu ñuy yàlla mu ci masa am ci barke Sëriñ Tuubaa sëriñ maam Cheikh ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci kàddu am solo yooyu xam se ne yëkkati nga ko kon mu mel ni béréb bi euh, sëriñ Mountakha xalif général des Mourides moo ko yëkkati teg ko ci seen loxo ngeen bëgg fee bay waaru ci alxuraan bëgg ko def ci ay tuut tànk yàlla na suñu borom subhaanahu wa taala mi xam se ne mooy dogal jàppandil lépp ci anam nga xam si ne moo gën kon xam naa dañuy jox sëriñ Seexuna Gaye rek nekk moom itam jëwriñ ci kër gi mu sànni ay kàddu ci béréb bu tell bu bu sedd bi nga xam si ne uh, sos nañ ko ngir fas fi yéene uh, def alxuraan ci ay tout tànk sëriñ Seexuna ñu ngi lay nuyu di la ziar ginnaaw nuyoo beeg ziar bi rek ñu bàyyi la nga nuyoo ko mbokki internet yu Rafah TV. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi nuyu mboolem ñëpp rek jiital nuyoo beeg ziar bi sëriñ Mountakha xalifa général de Mouride di ko ñaan yàlla mooy yàlla defal ko tawféex nuyu sëriñ maam Cheikh yàlla defal ko tawféex bu baax ba li mu yéene li liggéeyal maamam ju baax ja ñu ànd ak moom te ànd ak tam sumbaat yeneen sumb yu yeneen sumb yoo xam ne ba yëpp egg jàmm ni ko sëñ maam Cheikh wax ak sëñ bàcc yi noonu la demee biñ koy doog a sànci xawoon naa kii lool <laughs> waaye sañci moo mel noonu lépp rek moom ngelaw leeg yépp rek mu daal ci seen kaw ak yu mel noonu ñu ci nang nangi di ci nang nangi ba egsi fii tey lu ma nag tawféex bu baax a baax a baax euh, lépp nag sëñ mam Cheikh moom moo dox dox googu bañ jot ci kër gi euh, ba tey jii ñuy mën a ñëw di ci màggal ba ku ñëw fii ko koo mën doon rek gan guñ mën a am rek man koo incha allah man koo teral man koo euh, dalal dal boo xam ne ni mu gën a rafetee bërëb bi nag li ci gën a gën a neexati te gën a yéemeeti mooy ginnaaw bi ñu ko defee defoon kër goo xam ne kër Cheikh Mamadou Lamine Gaye la di defoon këru màggal da caa dolliwaat leneen loo xam ne ne xam naa ne kuy liggéeyal Serigne Touba di seex Cheikh Mamadou Lamine gay yaakaar naa ne la ci gën a gaaw mooy daara alquran mu ànd ak daara ji muy daara ju mag joo xam ne nii ngeen gaa néew fukk juróom fukki nit da nga nekk di jàng lépp njàng moo xam ne nii njàng mu rafet la mboolem luñ bëgg a jàng ci alxuraan ak mboolem luñ bëgg a jàng ci xam-xam lépp rek incha allah ñu fas yéene ko jànge fii fas yéene fee yare bu ëllëgaatee ñu ñu mën a nekk ay sëriñ Touba ñu eh, mën a nekk gaa yu baaxee ne leen sëriñ Touba doon yare ñu fas yéene barkeelu ca yarin woowee noonu eh, ñu sant bu baax sëñ bi di sant taalibe yi bu baax a baax ñoom it ñun bala boog ñun taalibe yi sax la ñuy wax sant leen bu baax ndax seen taxawaay rafet na lool eh, ba mu nekkee ndànd fay-fay bi nga xam ne dara nekku fi ñoom la woon ba tey jii nag kon ñu bëgg sax dañ koo bëgg sax mu gën a a yaatu mu gën a mu a mu a yaatu daal ba nga xam ne tey dana nekk daal mm, loo xam ne nii daal képp ku mën a doon rek bu ñëwee rek dana fi gën a mën a gën a mën a dal bu baax a baax loolu nag maa ngi ci woo ñëpp rawatina nag ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoom laa bokkal muy waa Cheikh Mouhamed Lamine Gueye moo boo mën moo xam que sëñ Mor Diarra nga féete wala que sëñ Alamine Gueye nga féete wala que sëñ nga féete wala que sëñ Thierno nga féete ba ci soxna ñi nga xam ne sëñ man Lamine Gueye soxna yi ñoo jigéen moo moo moo moo leen boole ak Cheikh Mouhamed Lamine Gueye sax ñi xam ne ay soppe lañ wala ñi nga xam ne dañu bëgg lu baax ñu xam ne fii day fu ñu liggéeyal yàlla la fu ñu liggéeyal yonente bi la fu ñu liggéeyal Serigne Touba waaye amaam ku ñu liggéeyal Cheikh Mouhamed Lamine Gueye la dañ ko yëpp ñoo ngi leen woo bu baax a baax na kër gi seen kër la liñ fi defee seen seen yëfa kenn war cee jiitu incha allah dañ ci ñu fas yéene taxaw bu baax a baax a baax kon maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare ñaanal sëñ maam Cheikh mi yàlla defal ko tawféex bu baax baax li mu bëgg a liggéeyal maam ji a na ko yàlla defal amin amin jërëjëf sëñ bi ci kàddu yu am solo yoo xam si ne yëkkati nga ko euh, kon xam naa dañuy jox jeneen jëwriñ rek yoo xam si ne moom tam ci euh, sëriñ hmm? sëriñ Ibra Gaye nekk moom itam ci ci njiitu daayira bi nga xam si ne moo sos li ci li nga xam si moom lañ taxawal fi ci kër gi sëriñ Ibrahima ñoo ngi lay nuy di la jaar ginnaaw nuyoo beeg jaar bi rek ñu bàyyi la nga nuyoo mbokki internet yu Rafah TV. maa ngi tuub baax di jégalu nag ci kàddu gi. waaye nag ñu jël ko ngir ndigal ndaxte nag fii moom bu ñu waxee war nañ fee wax bu ñu waxit war nañ fee wax ndax li tax mooy dañoo fekk suñu bàyyi doon ko dund suñu maam it doon ko dund te ñi ko doon dundal tamit ba nga ni ñi fi bàyyi taxawaay ba seeni wayjur amoon ñoom it ba tey moom lañ taxaw kon ñun buñ bukkut fii dafa mel ne dañoo teggale suñu waajur yi doon def kon loolu moo ñu fi boole ñu neen yàlla nag mu sa mu saxal ñu saxal suñu njaboot. mu ñu ñu dund ba keroog yàlla dañu fi jële ndaxte nag fu ñu yaakaaru la ndax man damay wax ne xam naa sëriñ su baax jëpp a mat a siyaare waaye du ma xat-xatloo ci benn buntu ko sëriñ fu ma dem bu xatee mbay la fi ndax xam naa ne la may wut si ñoom gis naa ko ci fi ma nekk te yaakaar naa ni ma mel ni ma fi sama mbokki taalibe yëpp mel euh, fii nag moom wax ji dafa dafa tënku ndax kilifa yi wax nañ li ñu war a wax noonu ñu ko wax rek amul lenn luñ ci war a mën a dolli dul gën a xam ne rek. suñ maam Cheikh mi nga xam ne ñoom euh, yàlla dafa dogaloon bi ñuy jébbalu ci sëñ Mañaaw lañ jébbalu woon bi ñu woon a gannaaw it ñëw ci moom waaye lañ gisoon ci sëñ Mañaaw it moom lañ gis ci sëñ maam Cheikh mi euh, mu mereen ne la fi sëñ Mañaaw bàyyi woon ba léegi ca loolu la sax yokk ndax ku dem Daaru Gaye gee nga xam ne moom la ñuy wax Touba tey da nga fekk daara joo xamante ne si ku ñu ne benn loxam bi moo koy dundal nga weddi ko te ma ngi cee def kéemtalaay kàttanam te euh, nam ko yore. daf daf daf daf boole ak njabootu boppam gi nga xamante ne si ñoo nekk ca kër ga di saytu njaboot googee kon mu mel ne noo ne daara joojee tënkoo incha allah rabbi daara ji tamit noonu lay tënkoo te lépp alxuraan ak bëgg ngërëmal Sëriñ Tuubaa rek moo tax mu def ko kon liggéey bi nag man liñ ci wax ci sama kàddu gi suufe gi mooy soññi ci rek mboole mbokki taalibe yi ndaxte nag foo kër gu këru sëriñ gu jag rek taalibe yi ñoo ko jagal Euh, ni ñu koy jagale nag mooy ci wàllu ko ci ndigal te ànd ak jëf ndax Sëñ Tuubaa xëy na bi mu fi nekk lu sunu dégg-dégg gàtt-gàtt xam nañ ne euh, moom amul woon jotug toog fenn waaye tëréw na ay taalibe nga ko doon toog fekk fu nekk di ko fi it ak ay addiya ba ci nii ko Sëñ Bàcc Faal ñu ko doon waxtaanee démb mu mel ne bi ñuy taxawal jumaa ji kenn ku nekk xam ne ne jumaa ji bañ koy taxawal ay katar palaak ay yeneen otaak yu mel noonu xeet yooyu yëpp amut te Abraay la gaslu Abraay kenn ku nekk xam ne ne ko jëlee fu mel ne dong wala Njaareem dong ba Touba xam nga ne doy na waar te ay pique peel lañ doon yor di gas di yem ci ay xur te teerewul dañ ko liggéey lu jut dat ba nga xam ne si ñoom laa bokkal kër Sëñ Modou Lamine Gueye gii ñu tënk ci loolu ñu xam ne fii kër Sëñ Modou Lamine Gueye la buñ nee kër Serigne Modou Lamine Gueye nag mën nañ ko séntu fu nekk ndax ku dem ci kër Gueye nga xam ne tey moo nekk ci Daaru Xuddoos bu leen neexoon am fa mu penc bu leen àdduna jiitaloon waaye maanaam mbirum àdduna taxu a jóg dañoo tënku rek ci siraatal mustaqim fii tamit tey bu fekkoon ne alal moo ko tax a jóg fii ku ku loog xayma yaakaar na suñu bàcc fal 40 mètres carrés yi war naa mat su ko ëpput ëpp na ko kon 60 mètres carrés kon tey mënoon nañ ne bu fekkoon ne dañoo dañoo bëgg suuf dong wala ñu bëgg leneen mënoon nañ nañ jaay lii def wala nañ def li def lee waaye dañu woo def fas yéene def daara fas yéene def dalub kër sëñ Mamadou Lamine Gaye ak képp koo xam ne sopp nga ko wala képp koo xam ne rek alxuraan ñor na la nga gis jotaay bi ak barab bi xam ne kon nag yàlla ñu yàlla may xolub joxe te may ñu lu ñu joxe ba ñu mënoo ba ñu mën a def lu kawe sunu njort ñun ñëpp kenn ku ci nekk si ñun nag maa ngi la koy ñaanal di jégalu ba baax a baax si kàddu yi nag wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom la leen taatanal fii ci fii daw si kër nekk fii ci Poroxaan ñu taat na leen kàddu yi ci màggalu Poroxaan gi muy bërëb bu tedd bërëb bu sell boo xam si ne fas nañ ko fi yéene taxawal taxawal nañ ko fi sax ba pare waaye fas nañ ko yéene jëmale kanam ten mu nekk béréb boo xam si ay tout tànk lañ bëgg ñu taat na fi alxuraan ñu war doo fi alxuraan ak xam-xam boo xam si ne xam-xamu diine bu la kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax ak tamit di soññi mbokki taalibe yi nga xam ne war ñoo ñoom lan ci soññi bu baax a baax ñu pëseefu ci di ñaan li nii ñu ko sose nii suñu ci barkeb soxna su tedd si nga xam si ne moo waral bis bi tey mu egg ci ni ñu ko tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim mu egg ko ci alhamdulilah di ñaanal mbokki internet yi Rafah TV yëpp jërë ngeen jëf ak Rafah TV ñëppay dañ agréer